assalamu alaykum gay ni na len dalen ak jamu Sen Sport 220 dañu ñëw ak yeen ci li nga xamne moy revue de presse bi dal di koy doré fi ci rewmi ak kayti xibaar bi di stade quotidien mom nak dafa ñëw ci suñu gaynde yi nga xamne jamono bi gannaaw lu yées ñetti semaine mo dox suñu digënté ak mondial bi nee ñom ñëpp fi mu ne nii mën nañu wax ni dañoo jëlat forme day manam man nañu wax ni équipe bi légui paré na dé ndax bu xolé ci walum kan yi ki nga xamante moy Edouard Mendy bi nga xamne mo moo ñëpp fi mu ne nii jotaat na place am te it mu ngi wone lu lèr ak équipe am bobu di Chelsea football club te delu ci bi nak lu muy am am solo waxtu wi mu dellu si moo gën a am solo ndax fekk na ñu soxla ko lool ci wàccaay yi nga xam ne ñu ngi waaja lii di coupe du monde boobule bu dee défense bi nee na ñëpp pare nañu nee na ñëpp pare nañu ba mu des ki nga xamante ni mooy Saliou Ciss ak Moussa Niakhaté ñoom ñaar képp ñoo parewul mais ku dul ñoom fi mu ne ni yaa ngay toj sa club di wane lu leer bu dee ci milieu de bi nee ki nga xam ne mooy Idrissa Gana Gueye ak ak seen club ku ci nekk yaa nga joué régulièrement ak club ba nga xam ne fa nga nekk muy Cheikhou Kouyaté ak ak ki nga xam ne mooy li nga xamante mooy terrain bi gannaaw bi nga xamante nga xamante ni dégg nga mooy Leicester City kon mën nañu wax ne kon digg bi amatul benn jaaxle guñ ci war a jaaxle attaque bi nee na ki nga xam ne mooy Sadio Mané Boulaye Dia Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye Bamba Dieng nee na ñoom ñii ñëpp ku ci nekk pare nga ñoolu nag yaakaar na gars kon xel mu dal la mën nañu wax ne fi ne ni équipe bi maanaam li nga xamante ne mooy jaaxle gi ñu ci doon am lépp fi ne mën nañu ko tegee boor te xam ne gaynde yi pare nañu voilà te fi mu ne nii kat ñaari semaine ak ki fan yu néew moo dox suñu digganteeg mondial boobulee bañ ñëwee nag ci kayiti xibaar bi nga xam ne mooy record moom itam ci loolu la ñëw waaye moom dafa gën a fesal li nga xam ne mooy ñaar lii di Europa League bi nga xam ne suñu gaynde ñoo ngi wane seen bopp bokk ci ku ci mel ni Youssouf Sabaly Krépin Diatta ak Ismail Jacobs ñoom ñett ñi ñëpp ku ci nekk démb passe sax nga ci match yoo xam ne ñoo ko doon amal ci wàllum Europa League léegi nag mën nañu wax ne ki nga xamante ne mooy ne mooy Pape leen moom dafa dal di toog ñoom éliminé nañ leen ñoom waa Olympiakos voilà ñoom moom amatul dara lu leen dese fi ci Europe lu dul concentré wu ci li nga xam ne mooy championnat ak li nga xamante ne moom la ñu war am ngir jouer foofu la ca championnat bu Grèce leeral bi ñu bëggoon def fii tuuti mooy eh, li nga xamante ni mooy barrage yi nga xamante ni ñenn ñi dañ jàpp ne ndax lu bees la comme équipe yi nga xam ne dañu jël deuxième ci seen groupe ci Europa League war a contre équipe yi nga xam ne dañoo jógee fële ci Ligue des Champions barrage yooyu du lu bees loolu moo fi mës a nekk équipe yi nga xam ne dañu jël deuxième ci seen groupe ci nga xamante ni mooy Europa League naka jekk dañuy jouer contre yi nga xam ne dañu jël troisième ci seen groupe Ligue des li nga xam ne moo xaw a tuuti te beesul mooy équipe yi nga xam ne dañoo jël Europe troisième ci Europa League te war janoo ak équipe yi nga xam na ne dañoo jël deuxième ci seen group ci conférence league maanaam équipe yi jël troisième dañu daan toog xam nga troisième ak quatrième ci Europa League yëpp dañu dem toog. waaye gis nañu ne depuis daaw bi ñu créé li nga xamante ne mooy conférence ligue bi ci la ñu gis équipe yi jël troisième ci Europa League ñoom du toog waaye dañuy dem jouer barrage ñoom itam ci li nga xam ne mooy ligue conférence contre équipe yi jël deuxième foofule loolu daal mooy li nga xam ne mooy ci xaw a bees te beesul ndax na ni ki daaw kon amul dara lu soppeeku ci li nga xamante ne mooy compétition yi doon doxee ñu jël ñi jël deuxième ci Europa League dañu joué barrage contre équipe yi jël troisième Ligue des champions kuñ ci dóor nga toog ku dóor qualifié huitième de finale ñi jël troisième ci euh, Europa League dañuy dem joué contre équipe yi jël deuxième ci Conference League ku ñu dóor nga toog ku dóor jàll ci huitième de finale kon yaakaar naa loolu leer na kon Krépin Diatta moom dafa war a jaar ci barrage yi janoo ak équipe yu mel ni ay ñoom Barça voilà ak yeneen équipe yi nga xam ne dañoo jël deux euh, troisième ci Ligue des Champions ngir war a mën a qualifier ci huitième de finale mais bu dee Sabaly moom loolu yëpp du ko fa xaar ndax ñoom dèjà jàll nañu bu dee ki nga xam ne mooy Pape Abou Cissé moom bokkatul ci loolu yëpp ndax ñoom dèjà éliminé nañu leen toog nañu buñ jógee foofu dañuy dem fële ci France kayit xibaar bi l'équipe moom dafa ñëw ci Europa League boobu ba léegi ak équipe bu France yi nga xam ne ñoom dèjà jàll nañu ci li nga xam ne ñu mooy barrage yi bokk na ci équipe bu mel ni AS Monaco gannaaw victoire bi nga xam ne daf ko dal di am seen diggante ak Étoile Rouge 4 buts à ca barrage yi la jëm Olympiakos moom Nantes moo ko fekk dal di koy defal bagage ñaari bal ci dara ñoom dem match nul un partout loolu ñoom itam moo leen yóbbu ca barrage ya léegi nag mu ne fii bu ñuy xool mbir moo xam ne di xañ na mbégte lay doon ngir jàll ci barrage yi ngir ñii di waa Monaco a dem ci barrage ya kon ñoom bég ko na euh, Rennes ñoom la pour ñoom ndax kat ñoom ñoo jiitu woon ci seen poule te ñoom bég nañu ci li nga xam ne mooy qualifié bi ñu qualifié ci li nga xam ne mooy barrage yi waaye Rennes ñoom mën nañu wax ne ñoom déception lañ ci am maanaam amuñu li leen gënal bu ñu sañoon dañuy dem qualifié directement te loolu match bi ñu am démb moo leen ko teg bañ jógee foofu dañu dem Angleterre seeti kayiti xibaar bi nga xamante ni mooy Mirror Sport moom tam ñëw na ci wàllum Europa League boobu nga xamante ni jamono bi gis nañu ne Angleterre seen équipe yi nga xam ne ñoo ñoom ñaar ñëpp dal di qualifier directement ci li nga xam mooy huitième de finale finale bu dee Manchester United ñoom démb dañoo dóor Euh, benn bal dara ñi di waa Real Sociedad waaye nag donte ne qualifié nañu ca barrage la ñu jëm barrage dañuy dem war a ak équipe yu mag yi nga xam ne dañoo toog ci Ligue des Champions équipe bu ci mel ni Barcelone voilà mën nañu ko am léegi nag ki nga xamante ne mooy Bruno Fernandes moom daal dinay wax ne Bruno Fernandes bu Man United nee na du problème pour jouer contre ñi di waa Barcelone ci li nga xam ne mooy play off yi moo may mooy Man United ñu daal di jàll ci li nga xamante ni mooy dégg nga barrage yooyu la buñ jógee foofu nag Espagne la dem kay di xibaar bi nga xam ne mooy sport moom dafa daal di ñëw ci ki nga xam ne mooy Gerard Piqué bi nga xam ne dafay tekki daal yi maanaam bàyyi football de Gerard Piqué dina tekki daal yi annoncé na ne dina bàyyi boo xam ne bu bette la ci euh, dégg nga foofu la ca match bu mujj ca Camp Nou ca contre Almeria bu ñu fa jógee moom kii di Piqué dina ànd ak équipe bi travel ci euh, dina dem wax de maanaam séntu ma lu mu yàgg-yàgg dinaa dellu waat mu gaaw mbaa yéex la ñuy wax la ñuy wax waaye dellu si moom dinaa ko def loolu moom na ko ñëpp bàyyi xel léegi nag nee li nga xamante ne mooy squad bi muy groupe bu Barcelone bi ak ñi nga xamante ne ñooy dirigeants yi amul ci kenn koo xam ne yëgoon na ne moom maanaam tekkil daal yi léegi bàyyi football mu ngi woon ci xelam Piqué wax na loolu yëpp du dara loo xamante ni maanaam daf ko euh, waxoon kenn maanaam mbir mi kon dafa bett ñëpp voilà léegi nag nee li des ci xaalis bi maanaam contrat bi nga xam ne des na digganteem ak Barça loolu yëpp dal dina boo xam ne nañu ko ko fi mu moom bàyyee na leen ko loolu nag tax na ba ki nga xamante ne mooy Laporta mu ngi koy tàgg di wax ne Piqué daal mën nañu wax ne effort bu ne def na ko ngir dimbale li nga xamante ne mooy équipe bi moo tax daal koo xamante ne maanaam ku ràññee la te it jàpp na ne dafa bokk ci nee na ñu day kayiti xibaar biral nañu ba tey ne ki nga xamante ne mooy Gérard Piqué gagné na jaar-jaaram foofu la ca FC Barcelone moom nag ñu fàttali leen am na ay club yoo xamante ne jot na fa jaar wala boog feneen fu mu mos jaar mooy Manchester United ak Barcelone Man United gagné na fa Ligue des Champions gagné na fa English Premier League Barcelone noonu gagné na fa ay Ligue des Champions gagné fa li nga xamante ne mooy championnat gagné li nga xamante ne mooy Coupe maanaam ki nga xamante mooy Piqué dal dina annoncé ci benn vidéo ne moom de dina bàyyi football suba ci match boo xam ne ñu war nañ ko am contre Almeria foofu la ci ay titre moom gagné na ko mu ne loolu rek mbégte la voilà te bokk na ci li nga xamante mooy European Championship muy coupe d'Europe boo xam ne gagné na ko ak la Roja muy équipe nationale bu Espagne nee message bi nag nekk na message boo xamante bu daw yaram la bi muy tàggoo moom ki nga xamante mooy kii di Gerard Piqué nee bu foofu la ci match bi mi mujjee joué dina am kàddu yoo xamante ne ko yëkkati kon tàggoo ak fans yi ba noppi dina wax ne ne dina dellu waat euh, ci li nga xamante bu ñu waat comme président wu FC Barcelone moo xam wala coach waaye daal ñu ngi séntu ne xëy na buy dellu ci li nga xamante ne mooy mbirum kii di Endrick bi nga xamante ne joueur Brésil la bi nga xam ne mu ngi foofu la di toj muy xale bi am fukki at ak juróom-benn te club yu bari di ko topp ci jamono bi mu ne Endrick de fi mu ne Barcelone euh, Real Madrid yónni nañu euh, ay nit foofu le rawatina ki nga xamante mooy directeur bi moom jamono bi mu ngi ca Brésil voilà su ko defee muy bàyyi xel ki nga xamante mooy boy bi te ci kaw loolu dinañu waxtaane li 60 millions d'euros kon mbir mi du yomb ci ñoom benn yoon voilà dinañu fi mu ne Real fi mu ne nii seen officiel ci ñu ngi foofule ca Brésil ngir war a mën a càmbar li nga xamante ni moo aju ci transfert le buñ jógee foofu dañuy dem Italie ak kayiti xibaar bi nga xam ne mooy Gazzetta dello Sport moom nag dafa daal di xamle ne ñii di waa Inter de Milan ñoom fi ne ni commencé nañu am ak njaaxlekat ci ki nga xamante ne mooy Romelu Lukaku bi nga xam ne moom ay blessé daal mu koy sonal moom daal day blessé rek moom daal dem nañu sax ba commencé di xayma di natt maanaam li nga xamante moom la sonna dépensé ci moom bi mu fa ñëwee ak léegi mel na ni mbir euh, bu mu joué ak ñii di waa Inter de Milan rek kos na leen lu toll ci dégg nga maam 46 75 d'euros par minute mooy li nga xam ne kii ñi di waa inter ñàkk nañ ko ci ki nga xamante ni mooy Romelu Lukaku ndax li muy joué bariwul li mu joué kes néew bu ñu xayma minute bu nekk noonu la toll 46 875 d'euros loolu nag mbir la moo xam ne jàpp ne fi mu mu ngi bëgg jéggi dayoo ba tey nee euh, ci dimanche bi derby d'Italie war na xew derby d'Italie war a dox diggante ñii di waa Inter de Milan ak ñii di waa Juventus foofu nak bu ñu xool nee ki nga xam ne Allegri moom daanaka mën nañu wax ne équipe am joueurs yi blessé woon ñuy commencé ñëwaat ko ci mel ni Bremer ak ki nga xam ne Federico Chiesa ñoo ñëpp fi mu ne nii dellusiwaat nañu ci groupe am kon mën nañu wax te dina yor équipe bu dëgër contre ñi di waa Inter de kon foofu itam mën nañu wax ne maanaam match lay doon boo xam ne dina am solo a la A yoo xam ne dina xew ci Serie bu Italie ci weekend bile voilà gaay kon loolu lañ gën a a jàpp tey ji ci kayiti xibaar yi continuer leen di suivre Sen Sport 221 The Best Sport News Channel